wàllum coppite googu noonu euh, tax na ba euh, président Macky Sall jël rakam bi nga xamantene moy mooy Sall euh daal di koy jox ndombal tànk bi nga xamantene modi directeur général euh, caisse de consignation de dépôt des consignations voilà mu mu mu jox ko mu nek directeur bob non fof non lolu nan mu mu éveillé daal ay ay ay rumeur yo xamantene ne neexul ñenn ñi bari na ci ay wax lan moo tax loolu noonu ndax li mu nekk euh, frère président de la république moo tax walla lan la. waaw xam nga ci euh, ci ci pal yi mu def yépp bi ci gën a ñaaw mooy falum Aliou Aliou Aliou Sall. ndaxte Aliou Sall premièrement yaa ko waxal sa bopp ñoo bokk ndey ak baay. Euh, deuxième chose Aliou Sall bu ñu ne mérite mooy yelloo na ko. gisuñu li fi Aliou Sall def ci parcours am bi war a tax ndomb tànk yi ñu ko takkal yëpp mu mérito ko Aliou Sall école journalisme la jóge CESTI lu ñu ko mën a xamee Sénégal mooy stage bi mu def wal fajri keroog ba mag ji duggee ci politique la mës a am ay ndombo tànk bu ne keroog la nekkee conseiller bureau économique bu Sénégal ci Chine ak yeneen ak yeneen ba mu ñëw Sénégal keroog ba mag ji nekkee président de la République mu mel ni Karim Wade bii gars yi doon fii nekk di xeex pour APR pour kii kenn déggul kenn mosuloon xam Aliou Sall kenn mosu ko gis mais il a mag ji ñëw nekk président de la République pour ñu ñëw gis ko mu dugg si suñu pétrole mu nekk spécialiste du pétrole ñu koy créer ay ay lu mel ni Petro-Tim ak lu ñu ko waxal nii moom moo ko def dafa grave dans un état de droit bu dee dëkk na dëkk bii at dëgg lañ fi àtte dañ ko war a entendre xool lan moo ci dëgg ak lan moo ci dugg bu doon bu dee lañ koy tuumaal dëgg la magam bàyyi ñu teg ko ci yoon. mais ay milliards milliards yoo xam ne moomu ko dolluwu ko ci baayam ñu ne moom loolu la yor tey parce que lan la rakku président de la république la ñu jóge ci loolu mu dugg ci banque ya ñu jóge ci loolu tey Macky Sall mi woon ne Aliou Sall du ma la mës a fal moom moo ko wax du ma la mës a fal tant que maa ngi président de la république mu mës jël benn décret boo xam ne dama lay fal moo tax ma conseillé Aliou Sall nekkoon dem ci privé yi te Macky Sall boobu mu jëlee décret mu dafa fal Aliou Sall euh, directeur. des caisses des eh, eh, caisses dépôt et consignation loolu scandale la xam nga dañu tam di wax ni pourtant ñu koy def fenen ñu koy def fenen. Ka bi ñu ka bi seen politiciens yi gëna a di wax moy France ñu koy def en tout cas ci quelques années yi ñu joggé amul ben président français bu def la Macky Sall la ñemee def Tay ji maa ngi déglu rek Mam Thierno Birahim Mam Thierno Birahim ñaa rakku euh, señ mudu Kara mo dafa febar ma ngi ñaan dimbal Mariam fay ak Macky Sall pass dama leen xam dama febar ñu dimbali ma dem faju parce que dafa leen xam waxul parce que dama nek citoyen sénégalais mais dafa ne parce que dafa fuma jaar ak Macky fuma jaar ak ñom ci Lo motax mu ngi ñaan Mariam fay ak Macky Sall ñu yubu ko dem faji jiko yalla nako yalla may mu tané la kay ñaanal mais dans un état état du fonctionner nonou du parce que da nga xam président wala président da nga ko neex wala yow yaa àndoon ànd ak moom parti moo tax ñu war la fal nga dem déedéet dañoo war a yemale doomu Sénégal yëpp ci benn tànk doomu Sénégal bu feebar bu ne état Sénégal moo ko war a jël jàppale ko faj ko ba mu wér amul moo xam président de la République wala moo xam Macky Sall wala moo xam Marème Faye dañ ko war a jël peu importe parti bi mu bokk ñu faj ko. caisse de dépôt et consignation Abdoulaye Wade moo ko créé ci 2006 mars 2006. ay 15 milliards lañ doon wax ak yu mel noonu en tout cas gën kaa bari ay yu mel somme yu mel noonu dépassé wu ko woon financement campagne 2007 pour la plupart bu PDS foofu la ñuy jëlee xaalis parce que xaalis boobu fu ngeen comprendre ko xaalisu lan la mooy Sénégal sénégalais boo am problème ak justice amande yi ngay fay consignation yi ngeen di fay xaalis boobu foofu lañ koy dem denc ñu war a atte benn affaire bu mag.

nee naa la Abdoulaye Wade seen campagne bu bare 2007 ci lañ ko financé tey Macky Sall bu mu koy jox rakk ji mu ngi wax ne plus de 200 milliards ñoo ci nekk te ci élection lañ jëm boole ci it consigna bu ñi nar a dem élection euh, garantie bi ñuy teg consignation yu ñu teg mooy ku bëgg a nekk président da nga war a fay 25 millions xam nga 15 millions 10 millions yi xaalis yooyu yëpp foofu lañ koy def te ñooñu xaalis liquide la ñuy garder man sama xel tey na tuuti parce que dañu ne woon Cheikh moom la ñëpp di wax mooy distributeur automatique bu APR koo amoon problème rek ci moom nga doon dem parce que président si boppam voilà lii nit ñi wax man amuluma ci firnde parce que dëkkuma Sénégal tey jii au moment bi ñu jëlee Cheikh Kanta ci dép euh, port ñu jël Aliou Sall muy rakk président la bu dem def ko dépôt et consignation fenn foo xam ne dañ fay stocké ay billets billets wu xaalis te tey ci ay information encore ñu ne dañu changer statut statut caisse de dépôt et consignation nekkatul organisme public mais semi privé là. ce que nous avons ñun la ça veut dire nous na droit fal ku ko neex mais lu jógee ci deretam daf ko nous na sori parce que nous avons Sarkozy Nicolas Sarkozy pour France bi mu amoon bëggoon fal doom ji euh, conseil général bu bu bu Haute de dans le 92 français dañu taxaw ñi ne ko loolu du fi am dafa naa carrière carrière carrière Jean Sarkozy fa Moi, je joxar la encore France Nicolas Sarkozy jabaram Cécilia waxuma waxuma ki mu nekkal mais Cécilia Sarkozy dafa mësu jël carte bancaire bu bu palais bi jaay ci 20 euros mu 12 500 francs CFA. dañ ko bind wax ko ba daf ko rembourser ba pare delloo len carte bleue bob parce que carte bleue état bi la lan moy ndayu fi Macky Sall wala muy njabotam wala muy kuko jégué ñu mëna jël suñu xaaliss di duggal fu len neex te kenn du wax dara muy ndayu lolu du du du du sen momi lu pas parce que parfois boko réfléchir da nga nan dafa ay signaux yoo xam ne ñëwoon nañu kenn gisu ko parce que bu ñu naan nguur nguur mooy euh, euh, nguur ça veut quoi dañ ko jiital mu jiite réew mi waaye moomul réew mi dafa war a rendre compte ci li mu yor ci loo xam ne suñu alal la malheureusement dañuy jaawale suñu alal ak seen alalu bopp loolu tax alalu boppam bu ko neexee mu dëkk ko rakkam wala mu dëkk ko ku ko neex mais li alalu réew la war koo dënk rakkam tey la daloon Abdoulaye wat dana ko dal parce que ñu bare danañ ko xeex du dañ koy xeex moom mais dañ koy xeex ndax Aliou Sall parce que ku dofut ku ne boo nekkee sa kër baay nga gis ab gan bu ñëw dugg sa kër baay yor sa biir kër sa kër baay di jaay li nekk sa biir kër baay di la jox wéccit yow da nga koy bañ ñun loolu dinañ ko bañ. loolu dañ koy bañ ñu gis ne loolu alalu nguur la. waaye tam ci caisse de consignation boobu noonu foofu la xaalisu Wulé Ndiaye loolu noonu tax na ba bañ ko falee mu nekk directeur de euh, directeur général euh, caisse de consignation dépôt et consignation boobu noonu tax na tamit mu moom Alioune Sall mu daal di démissionné ci li nga xamante ne moo nekk AMS maanaam association des maires du Sénégal. waaw yow Angèle kan mooy gis méchoui yi ñu tegal la méchoui yi jëlal la ay xar ak ay béy tegal la ne la kaay lekk nga dem di lekk ndambe. kan ma koy def keroog def naa ko ci mbedd bi benn jour benn xale mu jël pièce wu pièce wu 1 euro tegal ko ak 20 euro xale bi xoolul sax pièce wu pièce wu 1 euro bi 20 euro bi la jël. kan la ñuy naan kaay ñu jox la ay milliards ngay dem di lijjanti loo xam ne ay ay ay ay mille francs ay milliers de francs la ay cent mille francs la ak ay un million. loolu ay naxe mbaay la waru continuer loolu. Babacar Touré du jeexal euh, suñu interview bi te waxuñu ci li nga xamante ne moo di anniversaire bateau Joola maanaam tey jii nii la bateau Joola di am fukki at ak juróom ñuy ñuy ñuy fàttaliku doomu sénégalais wala doomu àdduna yi nga xamante ne ñàkkoon nañ fa seeni bakken. waaw euh, tey jii la am fukki at ak. juróom. man mu ngi mel ni man comme démb parce que daanu bato la jola dama ngay fàttali comme démb dama fekk maa ngi doog a jógee Côte d'Ivoire yeeg si Sénégal euh, le temps may noppalu ko dama dawoon fitna yeeg si dëkk bi yaakaar ne su ma ñëwee sama réew dinaa noppalu ay fan laa fi def beneen fitna bi fekk ma fi muy jëye bi li bato la ma ñàkk ci xarit yu bari ma ñàkk ci sama nijaay ma ñàkk ci samay cousin ak samay cousine ma ñàkk ci xarit yoo xam ne maag ñooma doon ànd jàng école ma ñàkk ci koo xam ne yi Jémé lu tudd ba tey amuma occasion jàkkaarloo ak njabootam kenn la ko doon liggéey ci mairie bu

ba met El Hadj Diouf ak ay moromam di di di plaidel pour ñu bañ a topp Mame boy Boye Yuba Sambu ak euh, ministre des forces armées mu yusuf anan fa la ma fekkon waye suite bañ ca def bayyi ba nu bàyyi dossier bi dama am luma metti dama am luma ma muy lan. ci 1800 ci lu ñu wax en tout cas pour man pour ñun plus de 2000 personnes daal lañ japp ñu dé kenn mësu see dem kaso dafa mel ni mën nga génn jël sa fetal rey 2000 personnes ñu ne defuloo dara parce que yow sa responsabilité engagé wul policier ba contrôlé woon arme ba te defar arme ba arme ba fu mu jaar ñun ñëpp kenn kenn kenn kenn kenn dara da ko ci fekk loolu la ñu woon te kenn yóbbeewuñu ko ku dul Abdoulaye wat Abdoulaye wat mu ñu yóbbee loolu. parce que c'était le premier mom mo mo mom lañu waron ñëk japp mo rendre compte ci la xew ci bato la jola defu ñuko ñu ci top ñep ñu bay kenn lañ ci inquiété muy gomis xamu nan gomis parce que jappé nañ ko France bam fa nekkon dafa ñëwon def escale ñu Paris ba mu yexé Paris ñu japp ko def na jusqu'à présent mu ngeen fofu ci genre contrôle judiciaire lañ ko def fofu donc gannaaw gogou ñi sé ñep bay nañ leen moom laay wax gis nga bu nu bëggee réew mu am jàmm dañuy faj injustice yi doo tooñ ba pare ñu taxaw ca tooñ yooyu continuer dara changé wu ndax boobu ak léegi waa Casamance ñu ngi jooy ne na nañ leen génnee bato bopp ñu mën a jëm dëjal seeni mbokk waa Casamance nee na xalé yi nga sini ci ni wéyjur gañu nañ ci bato ba té ñu état bi jëlone engagement ci xalé yooyu ne daf leen di defal lii daf leen defal lii dañ leen ne nañ ko def waa Casamance ne nañu bu kenn faté nañ ko duggal ci manuel d'histoire nañu enseigner ñu xam lan mo xew te bu ko kenn defati waaye dafa melni ni loolu lépp kenn kenn kenn kenn retenir ko tay la chauffeur yi gëna mëna surcharge tay la police yi mëna bay auto yi def surcharge ci mbedd

en tout cas waxuma la man waxuma la man sama génération waxuma la waxuma la man sama génération mais ñi fekkee batalo Jolaa pu boo leen laajee mooy góom bi gën a rëy ci seeni dund la xew ca Casamance la xew ci batalo Jolaa jëyee musu koo gën a màgg ci àdduna bi amul fenn foo xam ne

mënuñu mat deux mille personnes mais loolu lañ def au-delà des rescapés au-delà de doomu ñi nga xam ne dañoo mucc ci bato bi au-delà de ñi nga xam ne dañoo mucc ñoom seen bopp ci bato bi Sénégal ci boppam doomu sénégalais yépp ñoo soxla ñu utiloon leen ay psychologue pour nu seet leen pour nu xool leen pour nu faj leen dañu waroon a def li li ngeen li lébuy di wax ndëpp ndëpp collectif ñu ndëpp ñu ñun ñëpp parce dañ ko soxla woon dañ soxla ñu envoyé ñu ay psychologue ñu ñoo xool parce que kenn ku nekk ci ñun am na dérèglement boo xam ne batulo jola créel na la ko ba tey fajuwul euh, ba mu xewee jamono jooju noonu noonu ak léegi nii nii def na fukki at ak juróom gannaaw dafa ñu ko ci ci at yu njëkk ya yaakaaroon ne dinañ dem tey jii ne ba si 15e année bi ñu ci soog a def même bu fekkee sax da ra bàyyi ay sekel ci ci doomu aadama yi xam nga man bi ma nekkoon Ziguinchor dëkkandoo boo xam ne benn paa ab euh, retraité la woon ñaari doomam gendarme kenn ki enseignant la kenn ki gendarme ñoom ñu retrouvé wu en même temps ci bateau la Joola ñoom dañu dee ci bateau bi paa bi keroog bu ñuy jaale yatam la yor mu toog ci kër gi léegi yow booy ñëw di jaale

bi bi ñuy remplacer sa boutique mooy indemniser nit bu dee ci culture yi surtout si joolaa yi nit bu dee ñu jox la xaalis ne la lii mooy le prix du sang en fait ça s'appelle le prix du sang mooy naan nga deretam ñu bare ba bés bi may wax ni ak yow tey ci lii ñu xaalis boobu ñooñu lenn rek moom mënoon a doon seen ndëpp seen seen seen seen seen seen traitement mooy doon seen lu ñu leen di ndëppale xam mooy lan dem reflouer bato bële xool. mën na am ay koor yoo xam ne dañ ci fekk carte d'identité seen i poche mën na am ay koor yoo xam ne am na ñoo xam ne ba léegi fàttewuñu seen bopp keroog bu mu doon jógee ci kër gi lan la soloon ñu indi leen néew yooyu ñu rob leen bu leen robee bu leen di jooy bu leen di ñaanal ñoo xam fii diw di fii la tëdd ñu dem ñu dem seet leen loolu mooy doon lii leen di faj loolu mooy doon seen seen seen seen seen seen psychologue seen traitement psychologique tànk defuñu ko ñooñu dinañu dee mais dañuy deewaale ak suñu góom góom boobu dara da ko faj. Euh, ñu ñëwaat tuuti ci wàllum euh, euh, insécurité bi sànq yaa ngi wax ne dañuy gis ba tey ay car di di di fees ba surchargé. ay ay auto véhicule maanaam daal yi nga xamante ne dañuy transporter nit ñi loolu noonu nga yaakaar ne euh, nekkul euh, la faute ne revient pas à la population ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo koy utiliser parce que bu ñu demee arrêt ba are dañuy taxaw foofu noonu gis ne oto bii nii fees na mais pour ñu mën yàqamti yegg fi ñuy fi ñu jëm tax na tamit ñoom ñu forcé ba dugg ci. ñoom am ñu seen part de responsabilité parce que duñu ay bàyyi ma man su ma fayee sama paas ci oto. bu amul place ba mu ne taxawal duma taxaw duma taxaw damay toog normal wala mënumoo moko nga dem ma wuti beneen mais ki ci foot bi gën a incombé mooy policier ba ak gendarme bi nga xam ne mu ngi taxaw ci mbedd mi ñu koy fay suñu alal kooku warul gis oto bu mel noonu mu bàyyi ko mu romb parce que dañ ko jox 500 wala dañ ko jox 1000 francs kooku bu ci accident amee um responsabilité am dafa dañ ko war a engagé donc nit ñi puisque nekkuñu ci àll nekkuñu ci géej ci ab dëkk lañ nekk ñu tuddee ko territoire bi ñëpp nangul ni dañoo jël kenn ku ne sa souveraineté c'est-à-dire sa sa mën fajal sa bopp ñu dëkk ko kenn muy la justice muy ñu dëkk ko par ricochet à l'état état boobu nag moom moo war a àtte dëkk état boobu moom moo war a veiller à que ñun kenn ku ci nekk. nga nek ci ci ci ci ci ci karange nga nek ci jamm nga mën dem ak delu ci ci jamm bu ko état defulé da fay def la defle da defle da fay def fay def la mu warut a def lolou lañu wax il a fay à son devoir bu na amone justice bu libre citoyen bu nek man bok su nek ci mbeddu Dakar gis ni amna auto bo boo da fay surcharger ma gis benn policier boo xam ne contrôlé na oto bi ba pare bàyyi na ko mu dem dama war a jël relevé numéro mat matricule bu oto bi wala mooy photo oto bi ma jël numéro matricule bu policier bi ma porté plainte contre policier boobu noonu la war a dem en tout cas ci dëkku monde bi monde civilisé bi noonu la fay demee parce que kenn xalaatu en tout cas ñun ci Paris ci France policier contrôlé la nga génnee billet jox ko ne ko bàyyi ma dem kenn xalaatu donc ndëgam ne nañu ci ñoom la ñuy ci loolu lañ bëgg a defee lépp pourquoi duñ ko commencé ci yooyu. daanaka voilà li moo nekkoon euh, liñ fi indi woon tey jii nii ci question d'actualité. Euh, ñu lay jaajëfal de le remercier euh, yow Babacar Touré may fàttali suñu mbokk internet yi ñuy déglu dañu seetaan que ne yow journaliste nga nekk tamit directeur de publication site internet bi di Kéwoulo point info ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. jaajëf.